ma mais ku ma jàppale rek laa bëgg ndax xale laa amu instant yi fu ma nekk pour ma lekk sax rek garaaw appel bi lu tax ñu laal ko wax ko parce que fekk meurtre bi am ba pare appel bi doogu dugg appel whatsapp bu loolu taxuñu Nabou fan la nekkoon ñu koy laaj fan nga nekkoon Nabou fenn dafa nekkoon kër bi nelaw léegi fenn ni borne bi borne téléphonique bu nabu ba appel bi dugg mu ngi nekk kër Aziz Dabala fekk Aziz Dabala ñu rey ko ba pare appel whatsapp plus précisément du appel normal whatsapp léegi appel boobu kan la ci doon waxal ak ku mu ci mënta waxal ak ku mu ci mënta waxal na wax ak yàlla ak téléphone wala yente yàlla yusufa ak téléphone mais ñoom lu ñu soxla woon mooy fi mu ko fekk la liya comprendre nga la liya ndax nabu dafa leen gëmloo ni moom mu ngi seet Aziz Dabala wala yow déggoo yow tamit yow kañ may dégg dégg naa la bu baax sax moom dafa gëmloo enquêteur yëpp dafa gëmloo askanu Sénégal moom mu ngi woo Aziz Dabala jotu ko mu ngi woo Aziz Dabala jotu ko léegi selon lay enquêteurs le borne téléphonique de Aziz de de nabu Nabou mu ngi nekkoon kër kër Aziz Dabala léegi ba mu nekkee kër Aziz Dabala borne téléphonique bi montré na ki nga xamante ni mooy nabu jot na fa appel WhatsApp. mais Nabou dégg nga. la bu baax kay. na bu lan la wax. kan la woo woo kan la woo ma mhm. ko Aziz ana Aziz Dabala laay seet laajul waa këram laaj leen laaj Aziz Dabala. si si mi ngi ko doon woo depuis démb mais mënu ko jot. waaw mu ngi ko doon jot waa léegi mais ma ñëw lu enquêteurs yi gis dañoo gis ne bonne téléphonique bi nag waxul dëgg amul kenn ku mu seet il savait Aziz est mort bonne téléphonique ba mu ngi woon foofu. nabu gis nga xam nga ne nabu gis na kooru Aziz Dabala xam nga loolu. si gis na ko kay. nan ko lu noo def noo nan nga xam ne gis na ko yow. parce que ay ndës yi ñu ciy tudd. Mm-hmm, bu laal foofu lépp ko laal. non exemple bu précis rek. non lu simple la lu simple la bu laal foofu yëpp da ngay def kon analyse mag. muur bi muur bi wala. ñan si. ni ko defaree ba muur ko. non du muur bi borne téléphonique bi borne téléphonique bi mooy wan ni Nabou il était dans le lieu ki nekk si lieu bi gis nga dee. c'est pour que élève nga au lieu nga réfléchir nga nekk di cas. traite les informations comme telles sont dama wuti information ngi dëkk ñëw gars yi yaa leen mën yaa leen daa ko wax mbir nga wax moo tax man li utiliser Sanoo la TV fu nekk nii normalement si kanam tuuti war nga dugg YouTube war nga dugg ci Facebook dem Soleil wala nga dem enquête wala Libération seen page Facebook bi xool lu nouveau lu am ci enquête bi wala kenn jox benn source déglul enquêteurs yi dañuy jox presse euh, gis nga affaire bi liir naa PV bi te man libération dama koy topp bu baax comprendre waaw waaw léegi ñëwal léegi liiral ma léegi liiral ma borne bi liiral ma foofu di nga gis tous ñu ne la DIC sur les traces d'une exécution planifier fii ñoom dañoo dugal Nabou Leye à cent pour cent yërëmuñ ko ni mu amee. <laughs> yërëmuñ ko yërëmuñ ko yë ko wax. ni mu amee. loolu eh. lañ ko waxee. sosul de li leen source bi jox lañu wax. continuer sosuñu liir liir ko continuer liiral ma continuer ñu ne Abdou Aziz Ba di mm-hmm. Aziz Dabala mm-hmm. la principale cible a été pistée puis tuée en même temps que le jeune Wali en même en même temps les codes voisin bi ne woon. non non ma foofu en même temps bi gars yi yéen waa team Aouskiti teel leen ma en même temps yéen waa xel bu sell teel leen ma en même temps continuez. en même temps que le jeune Wally. six. des sept suspects gars yi teel leen waa tim Aouskiti yéen waa team Aouskiti bien réfléchi yéen waa team xel bu sell bien réfléchi yéen teel moo piste ak en même temps bi continuez. ñu ne six des sept suspects dont les téléphones bornés sur les lieux du crime. nga ni six des sept suspects. six. non liir nañ liir nañ liir. Ndës Assane Ousseynou Nabou Mamadou Lamine Dia. am na ku des am na ñaar ñu des six des sept suspects dont les téléphones bornés sur les lieux du crime après avoir échangé toute la journée après avoir échangé toute la journée ñëwaatal yokkal ma wàcce waatal ma tuuti quinze à douze secondes si li nga wax noonu wàccaatal si bind bi tuuti ñëwaatal des sept suspects dont les téléphone bornés sur les lieux du crime maanaam ci biir appartement bi mm-hmm. après avoir échangé toute la journée mm-hmm. interpellé par la DIC mais foofu dañoo def point. dañoo def point. dama bëgg nga dama bëgg am loo xamante ne nga ñëwal ma ci dama dégg après avoir échangé toute la journée dama bëgg nga arrière ma ci tuuti lan nga di lan nga la nga njëkk a wax foofu avant avant kay yow ñëwal mu foog. ne. Mhm. six des sept suspects dont les téléphones bornés sur les lieux du crime virgule cela veut dire la phrase continue après avoir échangé toute la journée ñu defaat virgule interpellé avec e accent aigu s maanaam ñoom six suspects yépp interpellé par l'ADIC après ñu def point. waaw waaw. bàyyi foofu suspense. après interpellé par l'ADIC. Mhm. def point. def après ñu tijjiwaat beneen beneen beneen. Euh, beneen ñu ne arrêté à Touba. Mamadou Lamine Diaw change de version je n'ai pas agi seul maanaam il n'a pas tué Aziz seul te moom moo ne woon moom kese moo rey Aziz. yow danga bëgg yóbbu live bi cinq heures de matin yow yow li nga wax nii rek live journée la fi nga maanaam li nga wax ni ba foofu après. avant arrêté à Touba Mamadou Lamine Diao change change de version change de version maanaam moom du moom dong moom moo rey ki nga xamante ni mooy Mamadou mooy Aziz Dabala ak Waly Aziz yow da nga am na loo liir ne ñoom ñi nga xamante ñoom siis dañoo discuter ci journée bi da ko fàtte. Mm-hmm. da nga fàtte ni dikk wax na foofu tamit enquêteurs wax nañu foofu tamit ñoom seen ñoom ñenn ñi ci sept personnes yi suspect yi six personnes yi ñoom seen bonne téléphonique mu ngi woon ci même liir mm-hmm. léegi looy def ay. Euh, euh, looy def waxu Mamadou Lamine Diawo bu dakaar bi paa bu Touba bi nan nga koy wax nan nga koy def. moom mi ne il n'a pas waaw ma ñëwal la ndax li muy wax dëgg loolu dëgg six si sept personnes yi kenn six personnes yi si sept personnes suspectes yi yi seen bonne téléphonique mu ngi woon fi nga xamante mooy studio Aziz dabalaa bi. Mm jàppal nga boobu. Yeah. mu encore mu waxaat ni encore enquêteur ñu ni ñoom seen ñi nga xamante ne mooy gang bi ñoom toute la journée ñoom ñu ngi dem waxtaan seen biir ci ay téléphonique. Mm-hmm. waaw loolu de de deuxième phase. si waxoon ni mais Touba moom dong moo azir mu ñëw Dakar ne moom kese aziru tappato woo leen dëggaay tappato leen léegi looy def loolu léegi kenn ki nga xamante ne nekku fa woon ak téléphone am xam lan moom xam la laay dutee ba xam mag ji nekkul woon foofu tamit. man mag hmm, ko dugal de man ma ngay def dara bëgg ma ngay nekk ci du faux dama ne li may ragal affirmé wu ma de dama li may ragal est-ce mag ji nekkul woon foofu tamit ci liggéey yi. nekk foo woon ah yooyu. bàyyi c'est bu def loolu la fa man la ko wax sànq pérégu ma même pas quinze secondes yaa ngi bëgg a tuumalaat keneen koo xamante ni. kenn tuumalu fi kenn. bul xalaat keneen yow yow xalaatal li PV di wax. lépp mën na xew billaay kii nu mu tudd sax. non awus awus. tu as raison de. xoolal en terme de mot d' accord personne expli xam nga loolu laa la waxoon ci nabu nga weddi ma. non dama dama en terme ah, de man personne n'est exclu mais awus awus awus xoolaatal léegi man xalaatat ko man ni may xalaatati si c'est possible ou pas. bu def loolu bu def loolu bu ngir yàlla bu ko waxaat ngir yàlla dama na koy ñaan rek ngir daraja yéen bi li xalaatatal soo xalaatee léegi bi nga trouver solution. so sammo daataleen kenn new fi acco nu wér baax tapote leen sand sandaga acco ci live bi kenn du ci reetaan ok live bi kenn du ci yow ñëwul yow rek laay déglu. dañu ne Mamadou Lamine Diaw ba mu ñëwee Dakar dafa changer version. léegi. septième personne septième septième personne bi nga xamante ne ci suspect yi la bokk te téléphone am nekkul woon ci kii yow kat nga ko foog. ndax bi bi bi bi nga ma liiral nii. xama jotuma l'observateur kii bi laa déglu euh, bref briefing briefing bu ngoone saalu bi mais parti bi déglu bu déglu ma ko baax mais heureusement dikk nga wax ko bàyyi naa si attente maanaam sept sept personnes sept personnes ñoo nekkoon si liggéey dont euh, six des donc des na kenn koo xamante ne téléphone am nekkul woon foofu. léegi suspect nag bu dee suspect parce bokk na ci comme bu ñu tuddee kenn suspet non suspect ça ne veut pas totalement dire que ci la bokk. waaw d' accord d' accord d' bi foofu suspect bi nijaay ji cee bokk d' accord léegi aw ah, yow law yow yow. léegi fii nee na moom de Lamine Diaw nee na moom il n'a pas agi seul. te mi ngi accusé ki nga xamante ne moo di Ousseynou Diaw. waaw. qui le réfute. qui le. réfute. waaw qui le réfute waaw. de lui avoir remis l'arme du crime. waaw et des accusations sordides contre les défunts. ñëwaatal ñëwaatal. Mamadou Lamine Diaw. waaw dafa changé version moom ba mu demee fële nga xamante ne moo di ca dakaar mooy dégg waaw. nee na moom moom kase rayul. te mi ngi accusé ki nga xamante ne moo di Ousseynou Diaw. Mhm. te nee na Ousseynou Diaw moo ko jox arme bi nga xamante ne. moom la rayee. moom la reyee ki nga xamante ne moo di Aziz Dabala. Mhm. mais foofu foofu Waly ba pare di leen accuser taxal foofu taxal foofu Youssou Diop moo ma jox paaka paaka bi ma rey Aziz Dabala mhm. ak Waly ba pare taxaw ne Azizuma Sël moo ñu jox laa bëggoon dégg paa moo ma jox moo ñu jox parce que da nga ne yow Aziwo Sël bëgg moon dégg en singulier dama bëggoon dégg en pluriel non xam nga ici parce que lui bi singulier la su ñu ne woon de les avoir remis l'arme boobu mun nañu pluriel la. pluriel waaw mais ah. bii. Ah, bul fàtte ne moom laa leex mooy waxu ki nga xamante ni mooy Mamadou Lamine Diawo dafa wax ni dafa sans diversion ba mu dikkee Dakar dafa moom agiwul sël dëggalul dëgg. c'est vrai. waa léegi awus dafa waxaat ci biir PV bi mu ni moom Ousseynou moo ko jox arme bi mu rayee waali kii te nee na aji wusul yaa ngi dégg incohérence yaa ngi dégg. incohérence am na am na lu fa lëndam. binduñu lépp libération bindul lépp. non non non non non mën na bind lépp non non mën na bind lépp parce que lu mu gis bi lay bind mais foofu déedéet si Abdou Aziz Diaw si Abdou Aziz Diaw ci si Abdou si Mamadou Lamine Diallo Diaw euh, kii la Diawo bi la su libération. foofu la wax lu dul dëgg bi euh, commencé. ci moom waaw foofu foofu la dugal ba pare génnewaat boppam dugal boppam ba pare génnewaat ñële. ñu commenté léegi ñu tijjiwaat beneen paragraphe ñu ne. pendant qu'elle prétendait dormir entre guillemets. Mhm. mooy Nabou Leye. waaw dama foofu. après avoir déposé Aziz Dabala chez lui PV bi dañoo bind chez lui te Nabou eggul chez Aziz loolu jaaxalu la. dañuy après avoir. Euh, pendant qu'elle prétendait dormir Nabou Leye. mais bi ñu. loo dégg si prétendé moom français la. Hmm? loo dégg si prétendé. si si mooy mooy amul. moom bu muy wax ni que moom mi ngi nelaw moo tax ñu continuer phrase bi. Hmm. ñu ne après avoir déposé Aziz Dabala chez lui te moom waxul ne que dafa déposé Aziz Dabala dafa ne. fi nga wax sànq nu mu tudd fi mu fi mu ko bàyyi. mooy ci rond point bi. mu ne la téléphone de Nabou Leye borné. ah. bismillah ñëw nga yaa ngi ñëw. du double homicide. lan. ñu ne la téléphone de Nabou Leye borné sur la scène du double homicide. yow dégg la yow boo liiree rek laa doo moroom gars yi ñuy def vidéo boo ko defee nii boo ko defee nii boo ko defee nii jël sa temps boo ko defee nii jël sa temps dangay gis solution. te dañuy ñëwaat ci paragraphe bi ci kaw. dikkal ci paragraphe bi ci kaw. ñu ne woon six des sept suspects dont les téléphone borne sur les lieux du crime. kon c'est confirmé que nabu suspect la. mais ah, pas coupable. boobu doyul de boobu doyul de boobu doyul de awul. waaw awul boobu doyul. waaw. bu dañ koo laaj jot nga message yu jot nga appel whatsapp xaw ma borne rek xaw ma borne rek day yomb rek mën nga wax ni dama fàtte tegoon sama portable di chargé dëgg loolu dëgg. waaye décroché nga fa appel whatsapp. est que xam nga ne gars yi xam nañ nabu ban appel WhatsApp boobu kan la. waaw. bu ko neexee ñu war ñu bindal ko war ñu waxal ko ko lu mu ci wax lépp. xanaa ma eh, WhatsApp bi kan la. waaw. parce que fi ñu ko commencé ne ko li ngay wax tu dëgg rek mooy biñ ko nee pendant qu'elle prétendait. prétendait elle prétendait. elle prétendait. parce que ils ont écrit français noir sur sur ñu leeral ko mbir mi. wan ko rëccuwuñu xom mooy fan mooy bañ ni ko ba mu ni sa portable dana borné mu ngi woon ci biir kër ñaar ñu ñu rey mu ngi woon foofu xam nga foofu namb lay bu ni man fii laa dëkk damay dem heure ma neexee fii laa bàyyi sam portable dem ñëwaat mu war a sam portable dama borné xam mën na ko wax waaw boobu doyut déglu gars yi li ñu ko wax ñu ne ko bu muy borné sa biir kër gi danga saa jot appel whatsapp da nga si waxtaan appel whatsapp jóg nga fa appel whatsapp kon moom balaa ñuy rey wala bi ñu reyee ba pare moom talul yuuxu talul jooy talul génn uti wàllu mais mi ngi continuer di communiquer soit non bu wax communiquer ma bëgg ma lool bëgg ma nga foofu dama bëgg wan ni foofu preuve am na ko maanaam gaa yi mi ma ñëw gaa yi dañ ko bëgg wax ni amoo alibi léegi xam awus mën nañ laa wax ni mën naa laa wax ni awus sa portable boobu mu ngi borne sa kër hmm. fekk nga ni non sama kër la waaye damaa génn dem supermarché sama kër dama ko faa bàyyi sama portable dama ko faa bàyyi pour mi charger hmm. waaw xam foo am nga lay dëgg loolu dëgg xam foo am nga lay dem ba supermarché xam am nga lay hmm. waaye boobu sa lay boobu da ngay fen dëkkatu ñun la ba muy borne si heure nangam. boobu jot nga fa boobu jot whatsapp. si si parce que suñu yemoon ci borne bi kese te tudd ñu appel whatsapp bi. mën na ne noo dama fa fanaan wala fa laa nekkoon. mais sama téléphone foofu laa ko bàyyi woon mais dama génnoon. waaw. mais dañ ko tiiñal ne ko danga fa nekk. plus da nga doon wax téléphone a yow la. waaw yow kii ñu ubbiwaat beneen paragraphe ñu ne sur la base des preuves techniques et d'échanges avec les mises en cause la DIC la soupçonne d'avoir livré hmm, Aziz Dawala avant de faire semblant de découvrir les deux corps dañ koy dañ koy tëj ba denc ko caabi lu ma dégg soupçon mais bu waatal ci phrase bi ak yow loolu dégguma ko woon ñëwaatal ñëwaatal ñu ne sur la base de preuves techniques sur la base de preuves techniques maanaam appel beeg nam fa nekk yooyu maa lay waatal ci jébbalu gi ma jébbal Cheikh Modou Bamba Xaadim Rasul yaakaaru jariñ mm. awus yàlla ma gisanteeg yeneen bi yow ma xiyaam na bu dañ koy tëj ba denc caabi ba damb caabi awus awus awus awus amu confirmation na na bu def na non non quatrième phrase bii moom dafa leer nañ na awus déggoo ma jëru ngay àggale awus awus garaawul mais sur la base technique laa wax awus waa xam nga base technique wu dik du naxa du du du naxaate laaj ma jox la base technique ma wax la base technique mooy la tracé mm-hmm. appel appel bi yaa borne bi dem Sonatel ak discussion bi ba ni ñoom ñett ñoom malfaiteurs yi def nañ ko. Mm-hmm. loolu ci la base technique la te amul ñoom si ñooñu xolal wi ma yii amul benn bu siy juum. mais li garaaw na di xel mu sell. waa jaw est-ce que xam nga ne libération li ñu bind nii bu fekkee loolu mooy PV bi dëggantaan. loolu mooy PV bi. bu dee mooy est-ce que xam nga ne mën nañ ko tëj benn dix ans may la fenn Kaba may la fenn bu ko libération waxul woon du dëgg procureur de autosaisine pour ñu ja pour ñu tëj pour ñu bi la ñuy tëj ko arrêté tey waaw eh libération li bu doon nekkul dëgg procureur bi ak ku signé article bi dañ leen di jàpp tey kon li ñu wax lan la dëgg c'est tout à fait la vérité. sur la base de preuves technique non j'aime trop cette phrase et d'échanges avec les mises en cause. Mmh. yaa dégg foofu avec les aides euh, d'échange avec les mises en cause maanaam échange yi war a yi ray bi ñu def virgule la DIC la soupçonne d'avoir livré euh, avant virgule bi avant bi ñu ñëwaatal fi ma waxoon léegi ma ma xalaatoon foofu ñu ne sur la baase de preuves technique d'échange avec les mises en cause. d'échange avec avec les mises en cause. avec les mises en cause. dama dama nga ne d'échange avec les mises en cause. Mm-hmm. échange. échange. te ci kaw. te ci kaw dañuy ñëwaat euh, dañuy ñëwaat ci premier paragraphe bi ba ñu ne six. de sept suspects dont les téléphones bornés sur les lieux du crime après avoir échangé ñu ñëwaat ci quatrième paragraphe bi ñu ne mhm. sur la base des preuves techniques mmh. et d'échanges mmh. avec les mises en cause avec avec boobu la avec avant ngay dem les mises en cause. avec. lan avec lan avec boobu la la la moo fa ne avec boobu lan moo fa ne avec les mises en cause bu ñu dem ci mise en cause nañ teg na les mises en cause. Mhm. avec nañ ko def am majuscule. A P mhm. majuscule E majuscule C majuscule. xam nga mënoon nañ def. et d'échange des mises en cause des parce que mais defuñu dee avec la ñu def. ñëwaat fa ñëwaat fa wax wax wax waxal ko. dañu ne sur la base de preuves technique Wow. et d'échange avec les mises en cause ñoom avec la ñu bind. avec bu fekkoon dafa demee neneen xam nga munoon nañ def. et d'échange des mises en cause mais dañoo jël dee bi sànni ko fële maanaam ñii dañuy affirmer li ñuy wax dañ ko xam. Um, mooy ça veut ko mooy xam lu tax ñu koy xam ñu xam ko xam tax ñu xam ko xam tax ñu confirmer lu tax enquêteurs di confirmer di wax ni di confirmer di wax ni xam nañu di xam ni déglu nañu di xam ni oh, tracé nañu di xam ni nangam dellu ma ci matériel yi les matériels de dikk dellu foofu liirama ko ci ginnaaw delluwaatal ci ginnaaw fële mooy sur la base de preuve technique bi wala sur la base de preuves techniques mooy matériel yi liiral ma léegi avant sur la base des preuves techniques léegi avant léegi liiral ma foofu foofu léegi loolu moo waral avec bi loolu moo waral avec bi liiral loolu ñu ne sur la base de preuve technique mm. et d'échange avec les mises en cause. La DIC la soupçonne mmh. d'avoir livré Aziz Dabala avant de faire semblant de découvrir les deux corps sans vie. <laughs> moo leen jaay moo moo jaay Aziz mais livré bi li ma ciy dégg mooy li nga wax sànq moo ubbi bunt bi. man yow kii bu ma coupé mu suba mu continue kaa bi kay daas na barke Serigne Touba ah. ñu ne ñu ñëwaat ci cinquième paragraphe bi ñu ne waaw le mobile du crime mhm. prend Mhm. en forme. la DIC pose les derniers actes avant la présentation. dellu le mobile. ñu ne le mobile. du crime prend forme. le mobile du crime prend forme. aw aw comprendre mobile nu ñu ko bindee mobile bi. comme mobile. mobile ñu ngi ko bindee M O B I L E. am na E wala amul E. si si am na E. ah aw su foofu ñu wax waa commentaire lii laa kan. xaama ubbi fii. mobile bi gars yi noo leen déggee mobile lii raatal foofu. ñu ne le mobile du crime prend forme. jamono foofu mobile du crime prend forme. je ne sais pas si mobile bi fii ça signifie téléphone. non le mobile du crime ou bien crime eh eh, eh le mobile du crime crime prend prend forme. genre la raison du crime li waral crime bi. mu ngi commencé jël forme. yaa. mu ngi commencé jël yoon wala mu ngi commencé jël forme. mu ngi commencé jël. nan la ko mën ci wolof. forme nan la ko waxee ci wolof. mu ngi commencé. muy cause. xaw nu may waxee mot bi ci wolof. forme ah, ah forme ni ñu koy waxee ci wolof forme. forme bi sama gaa yi nu ñu koy waxee ci wolof. jëmm. très bien. mi ngi commencé am jëmm. mobile bi awus mobile bi. le mobile jëmm melokaan. non le xam nga mais ku ma jàppale rek laa bëgg ndax xale la amu instant yi fu ma nekk pour ma lekk sax day garaaw